bàyyi ko fi gis gisam tollu mais tey laa jom ci àdduna bàyyi ma bàyyi kàddu gi ak papa Cheikh ñëwal ma dindi la fil bi sa chapeau papa Cheikh bu père demee nga jël place am dégg nga ñas demal ay ca papa ñu ngi lay déglu kaay demul ñëw demul papa bismillah ay ca papa Cheikh demal waaw tey laa mos a waaw jërëjëf Sophia jërëjëf euh, papa xam nga comme sànq lu bon waa wax mhm. c'est que dañ ñii euh, lu bon waa wax bon waa lu leer la wax hmm, kon papa yaa bon waa day day man Benoît lu mu wax moom laa àndal xam nga lu tax. Hmm? dañ ñu ne góor gu def ba ber la bañ ñu ber la yaa ngi dégg est-ce que la nga def ba ñu ber la ba nga ñëw di mere doom loolu est-ce que xam nga fondement bi lan la ndax am na ci góor ñoo xam ni sikk nañu sikk boo xam ni d'accord bu dee ci diine l'islam prospère yàlla may na la ba ñeent. du dëkk. Mm-hmm. wante di nga gis ko ci takk ba ànd ak sa aawalu yàgg yàgg yàgg. Mm-hmm. nga xëy ni ku fa ñukk takk ñaareel ne ko complètement sa aaw. dëgg la di jeng jeng jeng. yooyu boo ci demee ba nga xam ne te am na góor ñoo xam da ngay ñëw ñu ne dañ leen liggéey fekk liggéey seen bakkan lañ topp. Mm-hmm. ki leen di gën a toggal lu neex. ki leen di ngay dégg ñu naan la góor dëgg. bala muy neex ñu koy ay ay ayloo yooyu waxi topp la aawoo mm-hmm. non loolu moom dëgg koy téye ndax mooy nday ndax moo fekkee dem ma mu fekkee coono nga dëkk si benn néeg ngay kërti kërti kooku góor gu góor goo xam amul benn responsable matul kilifa moo koy def kon nag bu la yàlla mayee nga nekk ak sa aaw nga mën ko ba takk ñaareel ma ne du ma fàtte sama aaw waaye nag léegi aaw yi ay gën a nanu aaw ah, jeune fille la ah, moo tax ñu wax aaw jeune fille léegi da nga may bàyyi wala ma noppi waaw ba noppi ba noppi nañ noppi nañ aawo yi bokkut ak aawo ya nga xam ne moo amoon diggante Kajoor ak Bawol démb ak bërki démb bokku noog aawo yan daan wax aawo yaay aawo yaay aawo yaay aawo jeune fille doo taay fille aawo yi ay gune yu ndaw yoo xam ne doon ay aawa yoo xam ne dëj la ci sam ànd defuñu ko muy dara mm-hmm. la aawa yu njëkk ya daan muñ aawa yi muñu d'accord naa papa ah, mm-hmm. muñu ko mm-hmm. aawa yi doon yor oto sunu borom da leen di mën a gan doon am compte bancaire doon jàng école ni yow. teg nañu doon xam loo xam ne mën naa am sax ñoo lay gën a neex ay tubaab. Ah, foofu di luy xew ci réew mi xam ne ko doon dugg ci avion bi di naaw ak a ñëw. aaw yooyu la kooku soo demee ba sam xel njort nga ne ah négal ma daw balaa sama doolee niiw kee gis naa ko jàng na te mel na ne moo gën a laaj biir ndax kenn ku nekk doful kenn ku ne xam nga fa sa mbir di seddee nga ne naa ko jël soo ko jëlee ay di buuru sarax ay di buuru sarax moom daal ci moom ngay fél ci moom ngay nekk waaw dootoo lekk njanja soo liggéey ba wàcc ngay soog a añ doon koy tàngal waaw yaay fay póot yaay toggal sa bopp yaay paaseel sa bopp yaay fay póot yaay paaseel sa bopp moom mooy yaa jël mbindaan mi nga xam ne moo lay fóotal ci kër gi yaa jël mbindaan mi nga xam ne moom moo lay toggal ci kër gi ndax day liggéey day dem da nga fee nekk néew fi day dem yoonam yooyu aawa moo am actuellement aawa yooyu nañuy wax ne bokkut ak aawa yi mu naan